asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd ak euh, ànd bi ngeen ànd ak seen site bi di thieytakar point net tey nag sa talaay bi dañ ko doore ak tolluwaay mbas bi di covid 19 suñu jigéen dinañ addu ci euh, jiyee ji nga xamante ne moo am démb ci Sacré-Cœur ki nga xamante ne mooy Falla pay dafa faatu faataale ñetti doomam moom nag jabar ji jot na dem foofu nga xamante ne fa la jiyee jooju xewee réaction bi mu am dinañ leen ko dégtal ci biir xibaar yi suñ fa jugee dinañ wax tamit ci li nga xam ne moo xew aussi fii ca Médina tey ji suba gi ci lundi bi ab immeuble moo fa daanu immeuble trois étages la dal bi daanu dal ci ñetti nit kenn ki nag dafa mujjee faatu ñenn ñi ci ñaareen ñaar ñi jëlee ci ay gaañu activiste bi nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna nag ab naqar la xëyee tey kii di papam nekk Célestin Sagna moo mujjee génn àdduna tey ci lënd bi ñu ngi koy jaal euh, direction Thiédakar ñu ngi ko koy jaal suñ ci jigéen nag dinañ ko jeexale li nga xamante ne mooy information people yi boo leen taxirloo ginnaaw bàkk bi ñu yaatal leen xibaar Sacré-Cœur nag démb calme bañ ko xamee woon démb dafa daade dem ndaxte ab médecin dentiste bu wuyoo ci turu Fara Pay moom fa xaru dafa suicidé wu moom nag bi mu defee loolu yemu ca dafa jot a rey ñi nga xamante ne mooy ñetti doomam ñaar góor la ak kenn ku jigéen dalee na faat loolu nag li ko waral moom neen du leen dul jote li nga xamante ne moom la jotee jabaram ba mu toll ko foo xamante ne da koo jaral mu bindal ko ab lettre boo xamante ne dix page la pour wax ko ci lépp li nga xamante ne mas na koo metti ci digganteem ak jabar jooju mu jàpp ci ne jabar ji mérité wul benn yoon des ñi nga xamante ne mooy doom yu juddu sëy bi nga xam ne dëgg lalu ko woon sëyu intérêt la woon moom nag ci biir lettre boobu ba def ci accusé kii nga xamante ne mooy famille xale bu jigéen bi ne papaay xale bu jigéen bi ab jaaykatu ginaar la woon amul dara yaayam tamit naka noonu ab jaaykat la famille ku jigéen ki nag am na ab cousin boo xamante ne génne na def ab sortie di le ne ñoom génnuñu pour tontu ab nit bi nga xamante ne dafa faatu ba pare waaye dañuy leeral rek ndaxte papaay xale jigéen bi nga xamante ne mooy docteur Awa Diagne moom nag euh, ab euh, fonctionnaire public fonctionnaire la woon ci ci euh, administration publique bi dafa liggéey ba retraité ubbi li nga xamante ne mooy entreprise privée daal di commencé njaayum ginaar ak yeneen yu xeetoo ko xeet googu lu ci mel ne dend loolu yëpp daf ko doon jaay donc bu génnee def ab lettre ne papay xale bu góor bi xale bu jigéen bi amutoon dara nee ñoom loolu dañ ci apporter rek ay précision di waxaale tamit jabaru euh, Fada pay moomu moom nag waaji mi ngi bëgg xamle ni xale bu jigéen boobu amutoon dara wala nekkutoon dara bi muy dugg ci sëy bi ñoom nag nee na dañuy wedd lool ndax kii nga xamante ne mooy docteur Awa Diagne médecin généraliste la woon avant muy sëy kii nga xamante ne mooy waaji ci ginnaaw gi nag la spécialisé wu nekk li nga xamante ne mooy ab gynécologue donc du alal moo ko dugal ci sëy boobee noonu ñuy coow démb ba tey xale bu jigéen bi nag ki nga xamante ne mooy yaayu ñetti xale yooyu ñu faat moom nag ba mu yëgee mbir mi dafa daal di daw dem ci immeuble ba nga xamante ne fa la yëf yooyu xewee bi mu àggee nag ba gis état des lieux moom nag dafa daal di xëm ba ñu évacuer ko yóbbu ko hôpital ba tey jotagul àddu ci mbir yooyu lu ci ruus nañ leen ko tegtal fii seen site internet bi di ci dakar point net ñu wax ca Medina tamit ab euh, njëye moo fa xëy am ab immeuble boo xamante ne trois étages la nga nekkee ci rue bi nga xamante ne rue 31 la moo fa xëy daanu ci ay ouvrier yoo xamante ne dañ fa doon liggéeyee ñett lañu woon kenn ki nag jot naa faatu ñaar ñi ci des ñoo ci amee ay gaañu gaañu lu ci ruus nañ leen ko indilaatal fii nii activist bi nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna moom nag dafa ñàkk ki nga xamante ne mooy papaam Célestin Sagna paa bi nag dafa feebaroon tey ci lundi bi la mujjee wuy ju boroomam ñu ngi ko koy jaal di ñaan yàlla jégal ko xare ko na ñu àddu ci information people yi ak sëyëb ki nga xamante ne mooy Ndeye bi nekk ci série Karma dem dëgg di Yaxare Gueye moom nag démb ci ci dimanche bi dem na sëyi ci kër ki nga xamante ne mooy Moussa Versailles tam sant Moussa Versailles famille Jabi nag démb ñoo ko doon dal fee ci seen kër gi nekk fii ci Ndakaaru Njaay moom nag euh, dem na sëy foofee vidéo yi ak image yëpp di ngeen ko am ci fii nga xamante ne mooy ci dakar point net dinañ leen ko dugalal ñu ngi leen di gërëm ci teewlo bi ak ànd bi ci dangeen jëf Gerne.